bu ñaareel bi ko fekk si moo gën mooy diine moom lañ ciy teg euh, gis nga technicien buy participer gis nga li la dal léegi man a gis nga technicien buy bàyyi xelam ci liggéeyam mu ne baabaa moo gën a force sama wax rek yëgal nga ko sa bopp ba dindi ko te kenn xool loolu mooy liggéey dafa am loolu bu doxul am na loolu bu dox <laughs> ba abdu nag fi lay eh, di nelaw ba nga ko abdu ba ki nelaw rek nelaw ne ak day sias ya xam nga pël bo xam ne yang ko jele ci bu sambi bi mi ko indi fi dafa sambi won <laughs> ni fek ko ci dégg ba ne ko yow ne yaayi fara yaari Dakar mom defé na France la jëm bu mu ñëwé fi ak légui mi ngi wula woowaa Fuuta da ah léegi booy saawun la te ñoom ñëpp saala yàq saal bi ne fi xam nga Cheikh moom day kii moom day taxawal Moudou Fall moom day taxawal Moudou moom fu jeeg ne fala ne ah yéen seen chef yi kenn tanewul sa morom <laughs> fii daal joo joo la fi tane non Camara Camara fi tane tane rek jool baax na lool dalay xalaatal sax lu baax waaye dafa gaaw a xeex te yàq na ngooñ waaw yàq na ngooñ <laughs> ah? te Seex Fall da koo ragal ba waxee mu naan moom daal gannaaw gaañagu la moom amu ab problème amu ci xam loolu baaxul hmm? ndeg ba mu gaañ la hmm? kamara daal ci tane tane rek te daa ragal ab ragal kon mi ngi nonu bu jekk ni ñu daan yare dafa amone yaru goor am yaru jigen bu jigen jigéen nañ ko yar ci togg ak foor waye bañ ko ci laata yar liñ koy ñëk yar moy togin ak xoli ndax jigen dafa war a jigen dafa war a te dafa war solo. booba nag solu daa xew léegi futtiku moo xew jigéen ñi dañuy solu bu ñu soloo ba noppi nag toog toog ba noppi téye seen bopp mu ñett tey nag jigéen ñi soluwuñu tooguñu téyewuñu seen bopp kooku nag du sunub yar du yaru islaam waaye yaru occident la dee leen jël yooyu point yooyu par benn

li gëna ñëw ci li ñëw ci Afrique Sénégal bi li ci gëna bon moy démocratie moy démocratie mo yéne a une ci conversation FM 903.9 88 628 ku bëgg a woote ngay woté ci émission bi ñuy wax wax ji ñu ngi waxtane ci ku rek ngay 88 628 13 13 ci noo ngi toll ci yaru demb dañ lay jar yow jigen nga solu tok tey sa bop tey sa bop do ko jox kenn la tey nag solo solu da ngay sollu yarax malu khat mbaalu dang malu gat ku bëgg ay poj koorom borom gis ci poj robu kurt cai cai mënu ko robe courte boo xam ne borom dafa wan lupp ya xees ween ya génn mu buujal ko feeñal ci kaw feeñal ci suuf nëpp digg bi li des bariwul def nga ko deux trois parties nëbb benn bi te li nga ko nëbbee dafa yaraax te nee naa la wane ko ba noppi tere ko yombul <clears throat> Lamine Diagne <coughs> wane ko tere ko yombul fekk xale yi dañ koy wane ba noppi gouvernement wala état di leen ko tereel naan majeur ma ne majeur na xale bu toog ba xam ne góor soxla na waa nga mag weenam kooku majeur na ndax majeur mooy tamayis ci la ci la ko arabe jële ci la ko français jële moo bi du français <coughs> nañ xam ne ci teewaay yi lañ tuddee majeur moowu arab la mooy ko xas xàmmee xam ne góor boo jàkkaarloo moom mu xool la sa soxla nga sa ween soxla nga sa say say pooj walla sa waŋ ñu dangal ah, ba ko wamul dem wut dara teg ko ca kooka majeur na majeur na <coughs> nit ki nag su ne man kaay gaañ ma nga ne bu ko gaañ moom du teemu gaañu ndax ba muy gaañu doo ko yëg kooku état laay waxal ci réew mi leen dëkk xam na li xew koo bëgg mu mucc dangay fexe ba wax ko ni muy mucc waaye du doog ña ko war a gaañ rek doo leen xabal moom ci boppam wax ko li koy tax a mucc jigéen ñi nañuy solu tey toog tey téye seen bopp waaye xëy di jàngi école sol lu gàtt yenn lu ci àll bi jàngi woo lu mooy tubaab mu xañ la sa diine xañ la sa dignité allahu akbar xañ la sa diine xañ la sa dignité nga dem a dem ba nga xam ne fowukaay nga ko la ne bul doon fowukaay bi yow doon nga fowukaay ba noppi wane ko tere ko mi ngi nii waaye bu ko kenn laal mënu leen moo tax ñuy tëj bitig moo tax ñuy tëj néeg yi moo tax ñu tëj coffre-fort yi banque nga ne xam nañ ne xaalisam fa kenn wane ko waaye dañoo tere sax ko ko jege

ñetti far koo xuloon dem ci keneen kii mën a football ngeen dem mu dugal ñetti bii match ya jeex amatul nga wàcc ko fa dem ca technicien ba dégg ñu naan sama boy bi nu mu tuddati ah Boubacar Boubacar xam nga Boubacar xam nga li gars yi dafa son xam nga dafa sos sos moom moom son yem ci te xam na ko nag xale bi dafa njool xam nga te ñuul africain la quoi gisoo tax day sarme léegi <laughs> bii booy bii buñ dëkkoon day toog rek ma dóor ko yem tëf <coughs> ma moom mi xale moo yow yaa a sikki ñëpp ah Abdoul ba na tuuti kersa waaye yow ni ma la gisee ni ngay ni nga daan aborder yow mii booy bu garaaw nga man moo koy sax rapport laa ko tebal man rapport laa ko tebal noonu lay so day tëb xam ne naan boole moom lay tëb <laughs> booy yu mel ni yow yow yow yow kan la conversation yi moom la paa bi wax yow man kooku ni may def defagul ak dara. <laughs> ni lay def wallaay yow itam baax na su ko defee nag nga daal di rey sa bopp topp ci moom di daw guddeeg bëccëg te moom du la yërëm ndax dañu ne amour da nga koy prouver te prouver mooy futtiku rek waaye xale boo xam ne day génn du wàcc fa ndayam ànd ak faram dem fu ko neex moo tax may faral di wax ne xale bu góor bu nekk xam na faru xam na xam na gelu gelu doomam waaye xale bu maanaam xale mère boo gis doomam ju góor maanaam ndeyam xam na xam na gelam ndax day ñëw ci kër waaye xale bu jigéen ndeyam xamul faram du fa ñëw dafa ñëw feneen lañ waxoon Youssou Ndour leen ko wayal amoo morto bi tegal ma ko way feneenee feneen mooy bul dem sa kër ndey bul dem sa kër di jaay way feneenee feneen ngeen dem feneen fanaan fa foofa fu ma wax rek indil ma ko mu ngoog nga xam ne way woowu dara gënu koo bokk di musiba way feneenee feneen su ko defee xal yi loolu la ñuy gëm ndax waykat bi moo leen ko wel te nee naa la waykat béggukaay la waaye du royukaay li muy wax sax gàmmu moom day wut ay wayam rek wut xaalis mu ngi noon diine bi mu ñëwee fekk nu yare noonu suñuy jigéen ne nañuy toog nañuy solo tey toog tey téye seen bopp loolu la wax diine moom yamul ci ne ay solo nee na bu soloo ba noppi nañu muuru waxut yemul ne na yemu toog téye boppam waaye nay noppi la ci boole tey nag ñi gën a asaru ci télé bi mooy waykat yu jigéen yi boo nee ca làmb ji ay ay ay ay léegi ay xaw ma nu mu tudd si rapporteur yi jigéen sax da nga koy gis fexe nañ ba dugal ko ci làmb ji waaye mënuñoo dugal mënuñoo dugal xale bu jigéen retourné ko ci làmb yi dugal ko ci diini ji mënu ne ko ko def ñu ne islamiste ko ko fi def ñu ne ah, ah, ah, xaw ma nu ñu koy waxee ci intégriste xaw ma loo ko ba ko defee nag yow ñi muy woo waxal sax li li muy wax bu ko defee nag nit ki yàqu nekk foofu kaay ku ko bëgg a protéger fekk rey nga ko ba noppi ndax protection ba mu waroon na nekk mu jariñ ko ba nga génne teg fële diini ñëw fekk ñu ne ci loolu mu indi lu lu gën nee na waaw lii ngeen defoon baax na waaye wadrib na bi xumurihinna ala ala juyubihinna nañ ci boole sax di muuru di laxas seen baat wëndeel ko ci seen doq ba mu des seen xar kanam ah wala yabdiina zinatahunna illa ma zahara minha bu ñu génne ci seen taar lu dul la ca war a génne la ca war a génne nag li ci gën a fees dem ci yaatu mooy cati loxo yi yoxo yi cati tànk yi xar kanamam ñenn ñi ne lépp a war a móoru waaye fam war a génne mooy fa moom jëkkëram noonu nag metti na dugg ci mbuus rek wëndeelu ko la sax du xam góor nga wala jigéen nga xamuñ ah ngay gis nit ñi te nit ñi duñ gis am ah, na noonu xamuñu loolu kon ka loola baleen ko ca waaye nag bum leen génn ci ngeen di gis nit ñi nit ñi di xam ne ki nday jaay ak kii fat yooba kii xadi sekk waaye nag bu leen bari wax bu leen bari dox mu dellu ca teg ne bu leen wëndeelu lu taxawalu ni ñu jëk ñu réer ña alquran la waye waxu ne jigen bu len dox le. ñëwul bu len dem fenn waxu da ngeen di tub dem di ngénte ci ngénte da ngeen di roti da ngeen di dem marché da ngeen di taxani da ngeen di jëndi nangam wax deug yalla waye nak taxawalu la wax te moy permanent bobu dañ ko téré yalla bo ko sa way ne dangay roy tubaab tubaab moom baax na ci moom yow baaxul ci tubaab gëmut lut loolu muy def yow gëm nga leneen nga wàcc li nga gëmoon dem ko toppi ko Abdoul Baye yëpp nañu dem foofu ñu permanent permanent du naat ci yow de mukk te fu ngeen wéete nga permettre ko lu bari jëm dara gënta na a weesu joxe sa bopp fa la nit yem ni moo tax yàlla liñ koy defal lépp gëm naa koog tuubal naa laag jéggulu naa yëpp am na lu ko am na lu gën a gën a rëy mooy sujud ñëpp nangu nañ ne sujud moo gën a nangul yàlla lépp mooy wàcc nga am ah, doo doo gas suuf si jiw bi wàcc gépp mënta gën a weesu sujud rukon ak dese nga xiyaam dese nga <laughs> yaa ngi dégg de waaye rukon xaw ma sujud fa sa lépp a ngi ci suuf. nga jël xel mi jox yàlla ci dëgg-dëgg frère bi laa ilaaha illallaah mën nga ko wax wér nangam nangam waaye lee boo ci fekkee ne yëpp yi nga doon wax gëm nga ko gëm lii foofu la yem mënuma cee dolli leneen kon gëm nga ku dem nag nga gëm te gëm lii jaraloo la ko bu ñuy wax sax da ngay defee ne ay léeb la sa gëm ngay xool noonu ay daggiti jullit moo fi bari daggiti jullit kese waaw occident bi mu ñëwee nangu na lee la fi fekkoon l'islam nak mom dafa yaru dafa bax dafa jub dafa yu ba mu ñëwee mu ne ah ñii li ma leen fekké baax man yoron na li kon li xam nañ ko na leen jangal li xam moy jigen bu mu wax ci xaw non dañ dal ngàll nga li ta ko ko le wax dina ne bo leen ci wu day day du kare awra monga nga gis yaram beuyam ñoyam tay nak laa ne xale yu jigeen yi kat yu jigeen yi leen gëna yaq da ngay gis ko xamne ki asaro ko duggal ci musique ak musique yomb sa bo bëggee def lu bon ak lu ñak fayda manam buntu yi la koy may dafa yomb fi ci Sénégal so bëggee def lu bax yalla boko ko defal sa réew day jafé donte sa réew nga bëgg mu jox du dem dañ la kepp di la kepp ñi la war a ubbil ñoo lay kepp di la tëj di la nëj ba nga ba ci bàyyi waaye saa boo génnee bëgg a def lu bon ak bëgg a génne lu bon ak bëgg a xewal lu bon day yomb journaliste yi da koy njëkk a jëlal ñoo lay njëkk a génne jox la kàddu journaliste yi laa wax yi ñoo lay njëkk a jox kàddu ne la yow dégg naa yaa wax ne nangam ñu ne waaw ñu laaj la ko xam nga ne yow ku mel ni euh, wax naa ko ba tàyyi ndaw si ndoom ko koy dem ci ab journal di ko laaj di ko laaj wax dëgg yàlla xam nga ne bëggoo jàmm ci réew mi kooku borom xam-xam yaa fi proviseur yaa ngi fi savant yaa fi médecin yaa ngi fi nangam fi ngay dem ci koo xam ne li muy wax yëpp xamu xamu ci dara dara nga fexe ba mu bokk mu nekk au top. moo tax ma ne match bi bilaay bi Sénégal bu demoon sax demi-finale donc Serigne moom baye boo ñu leen seeni bagage ñoom ñëpp daara yëpp ay yàlla walbati na jamono ji <laughs> ñu réer ñi ñoo mujj di jiite ñoo xam ndax am xam-xamul waaye xam daa mel ni ku ci yàlla moo la jox eh, tibbal ne la aja te ñëpp a kàcc rek dara amu ci yàlla toroxal na ñëpp nag ñëpp la toroxal si par moom defe naa doxatul <laughs> allahu akbar kon mi ngi noonu suñu yar bu njëkk ci jigéen point boobu rek doyoon na ñu fexe ba suñu jigéen ñi di solu di toog téye téye seen bopp diine moom nee na boole leen ci noppi tey muuru mu tax koo gis muy dox ci jigéen te muuru te du jullit mi ngi ci yàlla bu bu defee ne nag baax na day da koy dañ koy nax rek du suwaa mo julli ak gëm ñoyam bo xese gëm rek lañ la ko laaj kon gis nga ngeneenal diine ci sa culture culture lu bax bax diine ko gën diine mom lepp ma correct duñ ko delo dara fekkoon nañu ko sacc ñu di lu door ma ngi damay dem ci xalé bu jigéen xawma bayna fay xalé bu jigéen ñu dem ci xalé bu jigéen góor dañ leen daan yar ci ñu nangoo liggéey maanaam ñeme ñeme ñeme coono ndax koo xam ne dangaa war a yor mbooloo yor sa bopp yor sa nay boo amee jom ak sa baay yor jabar atum njaboot yoraale ay a mu di surga da ngay nangoo liggéey li ñu njëkk def ci sa bopp bi mooy nga nangoo liggéey bala ngaa nangoo liggéey ñu ne na nekk ku am yar am maanaam am am wegeel mooy respect jox mag cër ba lébu sax gis nga ñoom dañu ne bàyyi jiitu mag topp ca rakk topp ca mais loolu yëpp ñu ko bëgg a yàq te a baax na li fekk bàyyi dooful nag ak mag bu boobaa nañ jiital bu ne rakk <laughs> loolu moo wér niteel ci boppam moo war a jiite te loolu diine na ko jàngal laa ko akbar waaye ñun xamul woon ne ku nitee war a jiite ku magee rek la moo tax bàyyee jiitu moo mag doom doom ji njëkk juddu mooy taaw taaw topp ci ku ci topp noonu nangam rakk ba ca caat mooy mujj diine moom ne noonu déedéet nite dangay am xam-xam nite ñëpp buñ ki gën a nite mooy bu ñëpp bokkee am xam-xam nite ñëpp nite ki gën a ragal yàlla moo mooy nite moo war moo leen di jariñ jariñ bu njëkk loolu amuñu ko woon sunu yar àggaloon foofu kon dama la bëgg wax ne mbatit lu baax la muy culture waaye ni ko diine gëne waaye lu mbatit di bon bon bon diine gën ko moom moo gën euh, Occident rawatina euh, système français bi nga xam nga dox fi nga xam ne moom du niteel nit waaw loo gën a jëm ci kàccoor gën koo man waaye yii rek tax nga dégg tubaab dëgg-dëgg amul. amul li may wax nag comme neex wooteel fii bala nga ñëw ñum ay mujjë la tubaab du yee dina ko xamal nag ci tëralinam ba nga xam ne beneen tëralin du dugg sa bopp beneen tëralin du dugg sa doo ko gis ndax loo xamul xamoo ko dem ba maa ngi def miraas moo xam ne ña fa nekkoon ay mathématicien benn avocat gi toog den nag man xaw ma leen sax amna na ci ay ponkal yo xamne ne mujj na jenn waaji ji wax ni man len señ li du mbiru ay xalat may ñu yor sama xalat man ko fi xalat amu fi man dama jàng ñew ñu ne na naa nangam ñëw di ma jox da ngeen may déglu ma def suma defé du non yeen ngeen su ko duggal seen xalat wala man laaj len ko man laaj ma len da ngaa jàng no jang man ko seenum ñang soxla woon ko fi atte yalla la ni wax fi seen njàng amul atte bam sax saf bi ma noppee waa ji nga xam moo ci gënoon a bari wax dana ma sëggal ma sëgg mu ne ma dama bëgg nga jox ma sa numéro téléphone fokk ñu jokkoo man waxuma sax xam-xam bi nga noonu waaye fayda ji nga ko defee impose dangaa imposé sa bopp ma ne ko man damay imposé sa bopp man aw ma faiblesse bu ma demoon ba biir université professeur yi toog li ma jàng li ma xam doomu aadama mënuma ci sax a jàng dama ko jàng indil professeur jële ko France fii laay wax ci olof ci linguiste ñu jëli

di ab kaw-kaw téewul a nite nekk université téewul a nelaw di ab ab ab kon ko defee xale bu góor daanañ ko yar ci moo am fit xaw ma mu ñeme waxuma am fit fit ñëpp ko judduwaale moo waral ñu koy jongal xale bu góor bala ñu ko daan jongal dañ jekki jékki bett ko domp ko maa ñu jam ko pour sa dóot ñu xol ni mu ñu lo ak namay wax ak yu mel non ñu xam ne ñeme na koku lañuy wax a ñu jël ko nak diko ko ci ca ba ñu xol ba xam tit na wala titul muy fecc ci la soldat yi di waye bu ñu ci guerre ya jambar jenge ya jambar jéege ya jambar ñu ah! di wane nun faalewun dara loolu fii lañ ko fekk tubaab yi jël nañ ko nu koy ñu ngi koy def mu tol su suñuy def seen escadron yi di dem di yuuxu fekk fii lañ ko fekkoon amoon na ci suñu ñu di ko tëggal mu wuti ngaamaan ba xam ne paaka la dañuy dagg tey ah, ngóoraam mu ñu ko mu naan duma jong daw saala yaa ko digee duma jong daw jigéen ña topp ko di toj saala yaa ko digee duma jong daw saala yaa ko digee ñu koy tëggal muy fecc di dégg galan bi ñu xam ne kii tiitu ba mu toog ci gën nag ñu war ko nag kooku mooy ñeme ñeme ak fit bokkul ñëpp a judduwaale fit koo gis muy daw mi ngeeg fit fit waa am euh, takkut ñeme ti fit dafa mel ni ndab rek ñeme cay dugg nga mën a dékku <laughs> ku ñëw ku judd rek yàlla jox na la ndab luy denc fit maa mu tudd fit muy denc ñeme ku la gën a am jom moo la gën a ñeme ndax da ci séddaale euh, maanaam gàccaay ndax ñii ne woon du ko man mënu ko ñii ne woon du ko xam xamu ko woon du ko def defu ko te nga war ko def te nga war koo xam te nga war koo man gàcce la am déet kon daanañu yar xale ci mu ñeme daanañu ko yaar ci mu am maanaam li ñuy wax euh, jom jom mooy ku sa moroom jari bëy soog jarul bëyit njëgu bëy nekk fii di technicien sa moroom yëpp mën a jël technique euh, animateur mën a jël mën jël technique journal yow mënoo lu mooy dagg ak dagg ak kole <laughs> te le technicien mu ne nag kon ku sa moroom jari bëy soo jarul bëyit njëgu bëy topbayal ñu ne ah Babacar nekk fi ana ñu ne Malick nekk fi ana Jool ñu ana ah, ah, ah wal malik. gi ah nu mu tëddi Abdoulaye man ne man kole man de coupé <laughs> ñu ne ñu de coupé wu ñu noonu yalla ko coupé wu technique lañuy laaj di di jël di jël ah man de mënuma ko du ma mën a dugal soo yi moo tax boobaa ñu kon sa morom jari bay so jarul bay ndek bay 88 628 13 13 la ma leen waxoon nag du ma ne fii man di talal rek ngeen yor seen xaaj bi te du ngeen ma woote te yor ngeen xaalis ah, ngeen may woo munu leen ko ah ay xale booy bu leen ma fooy waay ba man dama ah waaye xaaral man damay xam nga lu may def may bàyyi ba Cheikh Fall ñëw ma xoj seen kanam waaw ah ay yow maa ñeme lu waaw mais man xanaa gisoo ni may def jool jool dama ko wax yow jool moo gën a garaaw jool ah. jool day yor jaay si ki fett ak ki kii yooyu xam na rek te man sax góor wóoluwuma ko dara dara foo kii mu sëgg lu xam soosu daal am na lu fa <laughs> nañ ko seddee dañ ko war a seddee waaw ndax fii du armée te daal sëggam woo ko fi defar foo waxee moom lay sëgg loxo bi ca ca ca ba. mag mi wàcc ba fuuru <laughs> yaa ngi ñu daal di jël goor daal nañu ko yedd yar ko ci mu fasiyene di wut yëfi boppam te baña def boppam ci wéeru motax bi bayam di dund lañ ko daan ber jangal ko mu teel yor kër ak Euh, yoro une grande responsabilité 88 628 13 13 Nous devons tout faire ma Madalou. lu xew. waa nga ñëw fii di ma jëlal lii waay tam Souleymane Ngom man nga ko lu man ci France laa mën ko loo ci bind ma jàng xaaral ma jël xaaral ma laa ilaa ilaa laa kon ñu ngi jaajëfal Ndiogou Cissé ngi ci Facebook bi waaye Souleymane Ngom moom itam euh, bindal ma ñun ñëpp ma nuyu leen ma solo bindal rek teg foofu jox ma pël bu toogee di jàng français kii kañ lay yor nag naan dama koy sàmm du dem du dem yaram ci boppam moo dul nangu sàmm <laughs> léegi ordinateur <laughs> nag lay jaay di ko ordinateur <laughs> non dëkk bi yàqu na te ñun ñii duñ dem fen mu ngi noonu 88 628 13 13 kon nag euh, nu mu tuddati waaja Samba Mbaw la te mu dëkk Mbaw Mbokar Mbay Fall waaye nu mu tuddati xaw ma naan suñu auditeur te du am kër bu doy rek bu wootee rek allo man la maam Pape Maguette Mbaw mu ne kamaj deux cent lay jënd <laughs> deux cent day am jënd xaalis dindum doy Mohamed Sow Mbouri noonu lay def pël bi te kat day jaay gëréem bi waaye daf dafa nay 88 628 13 13 nga gis dañ pasin pasin ko ba bu fa nekk bu fa jógee nekk góor dégg mbala mbala mbay ma dikk naa junub boo jëmee ndeyjoor jàkk mel ni ku jëm eh, ci sa eh, sa mel ni ku jàkkaarloo sa kanam di joxoñ sa ci ginnaaw nga jëm te day am réflexion foo jëm jëm day mel ni ñaar a bokk ñaari nit du ñaari nit kenn ku ko gën a mën rek kooku la ñuy wax ne ci tàkk tàkk na bokk na ci ñuy tàkkee baax mbalam mbalam bay ma dikk naa junub kaay naa ni su ma la rawee tey nga deewoo junub kaay naa ni mbaar xoolal ci kaw no toolu bàyyi lan jëm ngay tool xool ci kaw mu fekk lenge fu mu jëm rek foofa la soxla waaye du waxam bu ñu dikkee nag nga naan eh, nañ la yóbbu université defe nag formation boo amul formation yi boo ko xasam am luñ lay forme day yomb waaw kii su kay ngom la tudd xam naa moom ne xanaa Souleymane Ngom benn la yow Souleymane Ngom le bin Sukai deh. Ah, Kondam Sulaiman am suke kon ba nah, ne bal bu bind mi laa ilaa ilaa ki écriture la ko mana a bind moo tudd écriture wala <laughs> ndeysaan ki Seydina Kan Diallo ñu ngi koy nuyu moom itam ak Jibi Jaase ak ak ñu ngi Mbay Mbaye Fama Mbaye Fama jaay ñu ngi koy jaajëfal moom it di Musa nuyu ak Moussa Diakhaté ak Cherno Dem gis nga ko su ma bindee wala wala fi doo ko liir su ma ko bindon ci pël doo ko liir nga bind ko ci français nga lire ko parce que moom nga jang man janguma tuba ma lire ko man ndax man na saa yëf yëfu day melni non bu ma bindee bu ma bindee tubaab léegi euh, su su kii nuñ ko di bindal ma jooni jooni ma xool bindal rek jox ma léegi nu xool quatre vingt huit six cent vingt huit treize treize ma xool ba xam dégg na boppam wala dégg waaw bindal <laughs> mi ngi noonu kon Mohamed Sow Mbour thème baa ngi noonu daw sin doon xaar ñëwul mungkin nonu noonu su ko defé ñu yobul la nga tak mbar bi nga xamé ni nak diine ñew na nangu nañu liggéey moom nangu nañu liggéey mom diine waye daf no indi liggéey ay sart ci xéet la ko def moy na dagan boko amul amna bu sip buñ sip man nga ja japp ba ba ngay am buñ dagan bu dagan boko amul nak bu arama fa des des koy muñ mm-hmm. gis nga ko tey nag da nga ne non c'est un travail wala wala mu ne man maa ko opté ku la ko opté daw lu nit opté rek dañ ko cay ba police nanguwul nga opté sàcc police nga opté jaay sa bopp police nanguwul nga te jaay drogue police nanguwul nga opté doxale nit ñi su ko dee rek ba nga nga génn yor sa yet àndal say gaay ku fa jaar nga ne ko loo loo làmmee police nangu ko. opté la bi nga dem nag yow di ab jullit opté bëre ñu bëre ne la man ngaa yor sobe man ngaa bokkaale man ngaa bañ a julli man ngaa ah, man ngaa nu mu waxati xërëm lu ne mu wax la ko nga ne maa ko opté puisque moom laa opté defe ne yàlla moom ab ab ab waaye la joo xam ne laa lu jaamam opté mu bàyyee ko ngeen di jaaxal rek te lii wax ci télé yi ak rajo lu ci bëri lu ñu leen wax dëgg ñu bari laa xamante nangu ñoo wax dëgg soo waxee ñu ne dafa sensible <laughs> sensible mooy lan sensible bi gën a sa diggante sa borom te ba rek xàmmee wuñ ko mu xool jooni jooni yow kay jëriñi jëriñi Basiru ah kii beneen la kii sëriñ ba sëriñ <laughs> Basiru si la man jooni jooni laa la bind loon ko ba léegi mënoo ko mënoo ko <laughs> damay sëñ Basiru xaw ma mu ngi noonu 88 628 13 13 waaw maa ngi leen di waxtaanal maa ngi leen di woo su ngeen ma wuy bu ci kanamee ñu teg ay xalam di tàccu di sar xolle di ma lee waaw bu ko ko woote di yow ku ñëw ma mu ñàkk fayda <laughs> ah yow yow nangam nangam yooyu lañ sawar mi du wax njëriñ ak lu baax day mel ni kenn ku ne xamoo lu baax wala du baax kenn dañ cee sawar yow di oni di oni <laughs> di oni di oni waaw ah, nii la ko tubaab bi bindee di oni di oni xamoon naa nii nga koy bindee waaye xamoo yow sa bopp nan nga koy bindee mënoo ko téeméeri për boo leen laajoon fii ñett ko ci mën a bind boo saa xam mënoo bind jooni jooni moom ngay gis ci mbedd yeeg kayit yi ki ko bind da tëb rek wax lo xam ne moom tuddee na ko médiatiser ko ba mu dugg ci bopp nit waaye li mu bind du du noonu tekkiwul loolu bëgg ngi ma bindoon per bu xar defe ko R ak K ak miim ak M ak N tuddee ko per bu xar nga koy lire per bu xar rek loolu laa jiw <coughs> waaye per bu xar kenn ko bind la lii yaa bind di oni di oni <laughs> 88 628 13 13 loolu moo waral <clears throat> boo yoree boo demee ba mat dugg ci kër da mën a dékku ndax ni ñu la yare bu ñu la yaree sori jigéen ñi sori jigéen ñi da la yomb moo tax ñu daan bañ góorug yaay may ma ñeex <clears throat> boo doon lekk ba sa ñeex jeex ñeme dem di ko laaj sa yaay baatug yaay sax dañ ko daan tere góor léegi la xew waaye buñ la ne kii mooy sa ndey léegi nga defee danaa saaga te góor mooy wax ndey jigéen mooy wax yaay <clears throat> yi tubaab bi jàngal nit ñi nag moom ba ci président loolu lay wax madame di monsieur waaye doone monsieur madame mukk kenn ñemewu ko ndax tubaab bi moom li mu wax def rek mbaa mu toroxal la mbaa ñu mën ne yow doo dara tekki dara waaye lii mu doon sunu sunu lii mooy sunu culture mooy sunu baax mooy sunu mooy sunu jigéen mooy wax yaay góor mooy wax saa ndey góor daawul siif ñeex dafa bokk ci yomb yi dañ koy tere góor dawul bari lu muy sangu donte sangu baax te diine bi mu ñëw ci andak ak patax patax patax patax goor góor yene rek mo am jigéen mom na mo toll wara toll fu mu tolli sangu tay man nga xey ba jant bi so bay teud sangu mu ñu ko yaram yi bokku tax gisee goor guy soli téere yeeg ay jigéen ñi soli téere yeeg ay yi man ko jëm waaw woote ngeen du dem yooyu yëpp tubaab yi nax nañ leen man ngaa nekk policier man ngaa nekk gendarme man ngaa nekk soldat man ngaa nekk nangam lu ne ñu ne nga ko nekk di xeex diine ba dugal la ci yoo xam ne yow nekk nga koy attanoo ko góor ñee naa la sangu paccax paccax daa bokk ci maanaam yëfi bëgg àdduna léegi la jigéen di góor di puudaru nii waaye kenn daaw ko def télé yi nag def nañ ko danga gis koo xam ne fi benn ko sasme innal lazina wa man kafaru nga xool ndeysaan puudar bi na ci <laughs> maa ngi fàttaliku <laughs> saa njoogu mii la woon di wax loo xam moo wóor du ko weddi mukk daanaka sax amu fa semaine moom génn saa njoogu booba dañu wax ne képp kuy génn ci euh, booba kii moo fa am benn mu mosaïque amaguñ sax tere muy def émission booba joor moo lay jël technique ak yu mel na man dafa nan fanaan émission boobu lañ ma boole ak moom moom mu ne du du bokk ak man émission saa njóogu ku weddi la woo ko léegi muy déglu du ko weddi ñu puudar ko ndake puudar bi daa des fi ci ginnaaw ginnaaw te booba écran yi kii yi dafa amoon ay ñetti ñetti ñetti euh, caméra bu la neexee ñu jox la sa ndaw nga féete feeñ fiñ mu mel ni yaa ngi jibli léeg-léeg mu joxe la wet léeg-léeg mu jox la patron bi ci sand ga ci xawma sax da wote ma ngi sama néeg yaay di dal di dal sun patron te mom ci bopam mo wote mané sama yaay déggoo ngi mané ma mané ko sun patron ngi mané day wote ci émission bi mané ko deglu rek waji la bëgg dal xam ko bëgg doon e Sa ñogu yeen patron bi gamu dara mané ko ah, xam nga yëf kiyam yoy muy defar rek léegi gën pour ñu ree bu ko ko mu ne ko day wax ñu puudar leen puudar bi sax mi ngi koy jëndé ca guuy ga ca sànd ga maa ngi tok mu ne ko xolal mo wax jor sax nañ la défal puudar bu bari ci sa ginaaw nopp té te buñ ko wanee ni da ngay gis puudar bi da ko faa xëpp <laughs> bëgg dem ci télé lu tax ngay puudaru yow jullit télé mo lay giir l'islam diinewul deg na ñu ne Alioune Sall dafa mas a dem ñu ne ko da ngay poudre mu ne déet man mom duma ma poudre ñu ne ko télé bi mënul boy def émission mënul ñak nga poudre mu ne kon mu ñak ma mais loolu loolu la gor yalla def tay koko gëna gën a siiw mocc leen fa man du ert fu ma neex lay dem kenn duma ma poudre fu ma neex lay dem ma ngay émission fi ne 2 heures de temps kenn duma ma poudre kuma ma ku invité kenn du ko poudre bo bëggee na nga budur bana kanya kanya xañ xañ ñaaral yaa xam waaye dama nan ku ma invité iya, gitu. dama naan bëggul ko kenn du fi poudre wóorul poudre télé moomunu diine ji ci lañu yalla teunk nenu li nga dem ci tele gedd wacc fa dine so waxe nga ne waaw xam nga li ngay wax bu di fekkee nga ne di lay tapale ngo jangale dine fi ne du fi farata ci kenn ñepp ngoy def kon dem ci tele bi de bëgg koo wax du farat du farat da nga bëgg xaalis ak siiw rek daara yaa fi ak ku ko bëgg a xam nga dem fa demal fu ñu dul puudare du tee ñu dem da ngaa bëgg a puudaru oustaz yëpp lay wax nag ku ko fi def tegoo ko ci diine ci ñàkk fayda dong moo ko teg ak ah, bëgg tele bëgg tele nag yàlla ko maa ngi nii amul benn oustaz bu ma ci gën a xew te man du ma puudaru ko ci bañoon am fayda it ñu fekk si la. loolu lépp dañ nu ko daan yar bi diine ñëwee loolu la ànd na kenn diine jàngaloon na ko de dafa fekk ñu koy yar dafa fekk ñu ne yar dafa fekk ñu ni ci yérey góor am na yérey jigéen am na tey nag amul yérey góor am na yérey jigéen góor day dem ak jigéen ku ne yor simis ku ne yor kap ku ne yor simis ku ne yor kap waye amna na lu xew ni leg ni ngi bënd seen bakkan ak seen tuñ yi cay góor goo ci def ak per def leen nak lu jigen def ngeen def ko yeen gor ñi yéen lu gor ñi jigen ñi leg ngeen gën ñi ngi ni gor ñi dañuy jong ñu ne yeen buñu leen jongal leen leen jong ni góor ñi don ayut nak tubaab ya ko bañ waye jigen man na jong wa gis nga ko xam nga gis nga li wax ci ci jigen bëgg aduna foko fekk ma ngay fomp yor fomp kaañ ma nga yor seetu ba di xoolaat ba xam amna lu des faatu xaar ma góor bu def loolu jigéen moom moom loolu tar tar lu jigin mo mo mo gur na defar kawaram ba du ñaaw mu peñewu maanaam yu me waaw nii baax na doy na sëkk ndax fi ne kii ni nga koy def xooloo kii fi ne mënta ñaari mu rek toog rek xam nga moom coow li bari yëpp moom mooy ñëw xam nga yow yaa ngi toog si toog mooy ñëw man maa ngi koy xool deux deux zéro xam nga def nga ko deux zéro yow toogal rek ñu julli ji te ñëw kon mi ngi noonu dem julli ji te ñëw émission bi jeexul dañuy dellu si waat waaye waajal leen ko nag ci 88 628 13 13 yi ma doon wax ku ci am looy laaj nga laaj ku ci am yooyu wedd nga wedd waaye dugg leen nag ku ci am looy dolli nga dolli waaye ba fii may wax rek duma ko nangu de damaa bëgg yéen auditeurs yéen laay wax dee leen ñëw acca